ñëwaat tey jii nii rek comme nu ñu amee habitude di ko def at bu jot ñëw xool si ndax engagement yi ñu jëloon si kanamu ministre de l'intérieur bu ñu defee CRD bi équipe yi réaliser nañ ko nu ko comité d'organisation bi bëggee ndaxte suñu client bi si si boppam wax nañu ne non seulement engagement yu ñu jëloon def nañ ko mais am na yeneen yu si équipe yu yokk yoo xam ne ñoom si seen satisfaction la ren nag si événement bi liñ si def mot na juróomi téeméeri million yoo xam ne mu ngi toll si ay post yoo xam ne dañ leen installé waat muy ñaari post yu bees yoo xam ne te benn bi sax moom mooy jël sanctuaire bii kese ñu nekk avec plusieurs source et également courant bi jëlee nañ ko si ñett possibilité yoo xam ne dafay jóge jas dafay jóge jógee Popenguine ak day jóge mbur pour mun a alimenter mais loolu aussi terewul indi nañ ñetti groupe électrogène yoo xam ne bu ñu amee problème si réseau bi groupe yooyu dinañ mun a jëlaat charge bi ba nga xam ne événement bi dina dox comme nu ko comité d'organisation bi bëggee. moo tax may wax ne le per mu mu ñaan pour que nag comme lu ñu waroon def ci wàllu technique bi yëpp def nañ ko yàlla dimbale ñu defal ñu sutura boobu ñu am yenn accident yoo xam ne dina mun a ñëw yàq événement bi wala yàq continuité de service bi.